foo nekk yor ambiance foo nekk xuloo xeex histoire te doo bëre. waaw mais loolu man boo nee dama bëre da ngaa kataraag wala yow danga ngaa demoon Togo wala Istanbul ba nga lu tax man nga ne man du ma bëre te laa gëj a bëre non damay amay combat muy yàqu rek amoon naa combat ma yaa promoteur bi dem ba si biir. comme li may wax rek yàlla dëkk nat mu yàqu maa ngi naaru soka si ñëwoon nañu war a bëre quinze mai la ñu waxoon wala quinze mai promoteur bi woona ma nee na avance bi mu joxoon nañ jël mu may ko day dem États-Unis waaw ñu koy sant di ko gërëm ah kii daal moom boole woon ak moom kii mooy copain Eumeu Sène bi nu mu tuddati euh, tamuy dawlal Eumeu Sène oto bi lañ nag moom boole woon ak moom waaye promoteur boobu noonu mu ngi dëkk Almadi quoi dafa ubbi benn genre télé perpervi moom la ko doon publicité joxoon na ma avance ba ma téeku bañ signé nag nag Brioche Dorée bi nekk bi nekk Pikine fa lañ ko signé waaye woo na ma ma may naa la avance may ñaan yàlla rek tamit promoteur bu ma joxaat avance tamit. mu mayaat ma ko rek ndax ñaari avance yi muy nii man la su ma bañ a bëre ñu may jox may lekk rek. loolu yomb na trop. ah lu yomb rek murid daa war a bëgg lu yomb ndax sëñ Tuubaa ñu ko liggéey ci maa yombe bàyyi. bu ñu bëggul lu yomb nu ñuy def kan moo bëgg lu jafe. maanaam yow yàlla la yàlla may lu jafe neen amin amiin déedéet waaw ah, kay déedéet bàyyi ko ah, dara yombul sëñ bi nag ñun yàlla nay yomb di bi nag man yàlla nay nooy ki may tëgalaat combat su ma ko joxee si barke Seydina Mouhamad yàlla nañ ko jàppaat dat yóbbu ko Australie mayaat ma ko muy gën di neex promoteur bu la jox avance daal def états ma lay expliqué muy neex sëñ bi déggoo li ma lay wax lamb coono la Baye Fall di lekk te du ma loolu neexul mais yow actuellement lan nga bëgg ci làmb sa taxawaay. li ma bëgg man la sumbaay mooy xaalis man làmb ji ñaanuma ci ay ndam tekki ci laay ñaan Biri Siri moo fi ëpp victoire amul xaalis. làmb ji ñaanuma ci ay ndam de. Hmm. lan mooy ndam. gars yi naan roi des arènes. sëñ bi déggoo li may roi neex na waaye yàlla na ma ci yàlla may ay millions. boo amee ay bo léegi ma laaj la amal benn combat ñu jox la roi des arènes bi nga perte perte roi des arènes bi xam nga laay ñaan ci déglu ma Eumeu Sène ngi nii la daan ak la ma daanu boo ko tegoon ci place day xaw a def nii Forza quatre victoire la am xaw ma trois défaite xaw ma quatre victoire Zarko mm, ne bi lamb ji xam la mos jëriñ naan gars yi xam la buntu boo fëgg mu ubbeeku waaw loolu loolu yàlla moo ko def. loolu yàlla moo ko def. non man wax dëgg yàlla ak yént bi man dóoruma martu man damay xët. waaw damay xët. te boo xët buntu ma expliqué la. Macky Sall mi nga xam ne mooy président sax day daw peloton si président France bi. te yow mii ki ki lay embauché nii bis bu taxawoon ak moom da ngay nekk foofu naa ko nii <laughs> wóor na yàlla sa site bi kañ yàlla na fi yàlla da ngay bañ mu dàq la. da ngay mar ni ngay maral kooku yow am nga ku lay maral pour yow nga nga far ko yow ngay maral ka nga mar am ka maral noonu lay demee loo xool xam ne markat nga sa patron bu ñëwee nga nga sa sib di kañ yal na la yàlla jàppale instant yi kañ ñaen ñëpp nee na ñoo jël pay di ko maral ak nga mën a mar daaw am na lu waaw loolu nag da ngeen kaa war a dooli waaw yow loolu na may wax maanaam loo def mu jig la daaw da ngeen maa seet si tourné ak man émission nag dama jaxase ak àdduna bi rek. kan moo la jaxase yéen de barke ngeen ma ak get ba tax na instant yi lamb ji waroon naa ci am cinq minutes ngeen ne mu moo get ma topp li fi naan ay moo get day bale warta bale day sànni xaalis bi moo get dafa loolu la saaf. tëggal sama combat man la suma waay yéen a ma jaxaseeg moom topp ma may def fi dof chaque jour ngeen ñëw na moo get nee na ma topp di wax ay waxi dof mu ngi nii di séddale ay xaalis ma bañ cee am. man jëluma la man ma la ba pare ngeen indi ma suukaru kool ma teg na lu ngeen may nee jox ngeen ay paquetu suukar rek te moo get bu ma envoyé woon man ma tekki. seen micro yi dee leen ko téye di defar bi sabili laa te ngeen bàyyi jaxase gi. kan moo la jaxase. yéen. kan laa la jaxase. waxal leneen. kan laa la jaxase. non yéen rek. benn journaliste bu defee ñëpp rek xam ma da ngeen koy def fu militaire. militaire bu benn militaire branlé ñëpp ay appuyé kon bu benn journaliste defee dara yéen ñëpp a koy bokk. léegi ndogu bi. ñëw nañ fekk la fii kër général. waaw kay sa diggante ah ma kay. léegi waxal man bëgg lekk. man sama ñaari plat préféré. benn bi lekk la beneen bi si des bu ma ko waxee gars yi bàyyi àdduna non ban entraînement. loolu sama meilleur plat préféré bu ma ko waxee àdduna tukki ak kaa bëgg oh. bi non xam nga bu ma nee entraînement te nekkul entraînement damay nekk naa féex. sama meilleur plat préféré oh. <laughs> ayya ma wax ko ah c'est que dama koy wax waaye sama mille plats préférés lan bu fi nekk naa day aana njaay waaye soo ne aana ma ne aana fekk nekkul aana nag nañ wax leneen waaw noonu la demee sama mel plat préféré julli la jàpp jaamu yàlla subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah al azim al azim looy sama mel plat préféré non moom dinañ ko def nee ma ndax lan man daam lu ma lan maa ko jox zie man tey bu ma nee Malick Niang nañ ma ko jox bu bu ñemee instant yi nii nekkuma si lu ko daan nañ ko jox mu daan ko. Malick Niang mënul ko daanee. non bu fekkee gis nga sëñ bi gis nga ñu ñëpp toog fii nii bu coow lu bëree ko doxot du ko yëg waaye yow mi ko doxot di nga xam ne maa doxot comme ñu fi nekk naan oh, oh, oh, day jékki-jékki rek mu xeeñ. kenn du xam ku ko def waaye yow mi toog doxut xam nga ne man maa ko def Malick Niang nii nii ku ma boole woon ak moom mënu ma kaa daan ndax nekk gu ma si waaye boo ko boolee kee wax dëgg yàlla ak yéen waa yof na ko di courage soxor baaxul jaajëf